Jene getelu sen sen Rumi Venkat TV.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 màggal Touba organisation bi nag ñu ngay woo bis yi di Dakar dem dikk ngeen ñu jàppale leen rek ci njëg yi dem baak dikk ba mbir mu nu mel nag doon nañ ko amal ni ki tey ci altine ji yem benn fan ci weeru sulet ginnaaw rek bi doon amal nag lii di ab CRD foofa ca gouvernance bu Diourbel ngir wàccaayu màggal Touba bi mu nekk rencontre boo xamante ne rek nañ sa naka la ñuy def rek ba partie prenante yi rawatina nag gouverneur yu yi ak porte parole bu confrérie murid di Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké Mbacké mu nekk ay poñ yu am solo yoo xamante ne rek waxtaanee nañ koo ngir organiser li nga xamante ne rek moom mooy màggal Touba rawatina dem bekk dikk bi nga xamante ne rek taalibe yi nak ñu ngi koy amal ci boobu lee jotaay mu nekk ay kaddu yoo xamante ne rek coordonnateur général bu comité organisation Serigne Ousmane Mbacké daal dinay woo nag société bii di Dakar dem dikk nak ñu daal di considérer rek réew bi bu ñu waxati Dakar dem dikk waaye nañ wax Sénégal dem dikk nga xamante ne rek ñoom am nañu doole boo xamante ne rek jamono ñeel paas bi ak li nga xamante ne rek moom mooy yokkute paas gi saay su màggal uh, jub see ci mbir mu nu mel nag ña ngay sàkku rek ñu def ci seen kéemtalaay uh, kattan uh, ba du am moom directeur général bu Dakar dem dikk Assane nga nag daal dinay participer ci boobule CRD waaye daal dinay xam ne rek que ne am na ay innovation yu bees tàq yoo xamante ne rek fasina nañ ko amal nag ci màggalu ren gi mu nekk kaddu yoo xamante ne rek daal dina koy yëkkati nag nee na daal fasina nañ rek renforcer ba noppi rek yokk li nga xamante ne rek moom mooy service Dakar Dakar dem dikk yi ci équipe ci technique lépp rek dinañu ko mettre en place ngir mën a fexeel nag lii di géolocalisation bi ak intervention bi ci mbir munu mel nag kii di Assane Mbengue ma ngay sàkku rek ci diversification ginnaaw point yi nga xamante ne rek def nañ ko mu ñeel point de départ yi nga xamante ne rek fala taalibe yi nag di jëlee yooyu la oto ngir mën a dem ca dëkk bu sel ba di Touba Mbacke ne nañ nag li nga xamante ne daal moom mooy njëg bi amul yokk amul puus amul wàññeeku fa mu nekkoon rek la dal di nekk ba tey rek ci wàllum kaaraange 15h na sapeur pompier bu pôle urbain bu jam ñaajo nag dinañu ko amal délégué général bii di Bara Diouf nag dal dinay dalal rek ni ki moom mooy ca pôle urbain bu jam ñaajo mu nekk nag nee na euh, fois bi nga xamante ne rek daal dinay jël nag parole euh, depuis bi ñu ko installé ba nëgëni moom ci jëm boppam rek ngeen jëf ci ànd bi leen fàttee abonné bés cloche de notification dara bañ na